Bienvenue sur Salam Vision. observateur xëy bind Macky emploi le bâton ñu mën caa jukkee ca yooyu kàdduy farañse emploi di xëy ak bâton yat wa ngir nettali ne président doon serale naam démb ñu nekk ndaw ñaak wutal leenam xëy waaye te na mu tàngalee ci aji manifester yi fi doon songi gendarmerie ak taal kër jàmbur yi mu ne loole naam romb na waaye dootu fi am état bi dootul nangu lu ni mel ci observateur président Sall ne euh, yàlla baax ne kon ci musiba la ñuy tàbbi waaye fekk na ba Sénégal doone démocratie bu mag ca nag mu ne njuumte la nit taxaw lu xalaat ne ab état daa faible lu jëm ci liggéey bi nag ngir jox ndaw ñim xëy président Macky Sall ci observateur ba tey di xamal ñi nga xamante ni ñoom la dénk kuréel yooyu yëngu ci fànn woowee ne du leen muñal benn yeexite wala yaapar yaapari ndax nag mu ne dafa joxe kàddoom ci kanamu ndaw ñi ak ci kanamu askanu Sénégal Sud Quotidien ne Macky Sall génne na naam mbaquus ya waaye yattu kel bàng ca wet ga it yéene kaay bi ne démb président validé na nag programme bu xëyu ndaw ñi li ko tàmbalee weeru mai juróom benn fukk ak juróomi junniy ndaw daañ leen wutalam xëy convention état employeur jëlee nañ ko benn milliard yóbbu ba fukk ak juróom ci milliard waa université coowaloo ga fa akuk sëmbaxloo président Macky Sall ci Sud Quotidien ba tey ne dina ko dakkal ndax nag mu ne daara ji kawe ji dub areenub xeexoo ne ay gladiateur la tribune ne ak président dem ca jam ñaajo chegi xaalis yi génn na de waaye daan ya njiitu réew mi di xamal liggéey katam yi mu denk kuréel yi yëngu ci wàllu xëyum ndaw ñi ne lu jëm ci wàllu perte de temps du ko nangu ca it dina may gët bu baax opération yi ba xam ndax lépp ànd naa ko leerange la tribune xamal ñu mu jii moom la joxante ndajeek ndawi Sénégal kàddu président Macky Sall ci ndaw ñi ci seen janoo démb ca jam ñaajo la soleil fësale ko moom kilifa gi naan état bi du leen masa bàyyi yéene kaay bu ànd ne programme d'urgence bi mbébét gi mooy ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñetti junniy xëy ak xëyal sa bopp diggante 2012 2019 soleil xamal ñu ne ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti junniy xëy taxawal nañ ko ci Sénégal secteur privé gi démb it président Sall woo leen ci bay seen waar lu jëm ci manifester yëfi woon nag ci weeru mars président Macky Sall ak bi di ne Sénégal démocratie bu mag la lu ko mooy ci musiba gu rëy lañ naroon tàbbi laas ne pexe mu gaaw bi mel ni melax bi président Sall wut ngir xëyam ndaw ñi bokk na ci data center bu jam ñaajo bi nga xamante ni dina jollil lu toll ci ñeenti junni ak juróom-benni téeméeri entreprise yu nar a taxawal fukk ak juróom-ñaari yi xëy teg ca li ko tàmbalee weeru mai bi juróom-benn fukk ak juróomi junniy emploi ñu commencé ko ci wàllu recrutement ci lu ànd akuk lerange Walfadjri ne président mu ngay digee ndaw ña ñoom di xaar lu ay gët tegu les échos ne démb ndaw yi fukk ak ñeenti diwaani Sénégal dañoo ñëwoon gaaral président seeni jafe-jafey jafe dundin vox populi la mu gis mooy démb président génneel na carotte ga ndaw ñi waaye dencal yet wa sonko source a lu jëm ci jafe-jafey xëyu ndaw ñeek li ko gàllankoor njort na ci it ñi nga xamante ni ñooy mag yi tëw a dem à la retraite source a wëlbatiku jàppee président Macky Sall champion ci wàllu recrutement troisième âge dale ko direction générale ak conseil administration yenn yi RTS ca la ñu ne Aprosi ITA Petrosen Holding BHS Sodefitex IPRES Le Soleil i pa ci bopp direction wala conseil d'administration gi ñuy jeexale lamb ji ak sunu lamb ak sport business bi Balla Gaye 2 dugg yenekaay bi dama ngay topp tànki Mouhamed Ndaw Tyson Aziz Ndiaye ne xaalis bu bari nag la lañu soxla ngir tàmbali business bi moo waral sunu lamb ne ñetti combat Balla gay 2 jël na ko ci Gaston Mbengue observateur xaymaa ko ci milliard boo jël ñeenti cër ya benn ba ci Gafa Gaye Balla Gaye 2 dañuy dellu sunu lamb ak Gaston Mbengue mi dekkil ñu ne Issa Pouye ndax juróom-ñetti at a ngi mu wuute bëre Issa Pouye Gaston Mbengue fas ko yéene boole ak Alioune Seye la waaye nabar la Macky bëgg de box boobu di ne lancement programme xëyu ndaw yooyee waaw dama ne la président Macky Sall day génnee na carotte ba daal di koy jox ndaw ya waaye génnee na yat wa day daal di jox nag Ousmane Sonko mar di taali Macky Sall ci libération yi ne kaa ne nga xam ne moo fi amoon ci jamono jee ñu génn day manifestation yo waaw dootu fi amati de te mënatul amati nag te kenn mënta taal réew mi boobee benn ñaar bu tam xalaat ne nguur gi ci boppam daa dem ba amatul doole loolee newul président Macky Sall ci exclusive yéen a kaa ne am na ay réew yoo xam ne bu dee am na yow ab citoyen bu normal xëy rek jóg naan songaat gendarmerie dana amaat taalaat ay tribunal dana amaat taalaat ay këru jàmbur yoo xam ne day yow daal tegoo ko fenn gratuitement ah dama la loolee dootu fi amati ba illaa yow mi diin yéeni kaa ne en tout cas président Macky Sall day waaw daal dinay dalal na xelu ndaw ya Macky Sall ci la solo yéeni kaay tribune yéeni ne jàpp ne nag nguur gi dana leen gunge te dootu leen bàyyi ba illaa yow mi diin danaa nekk seenuk wet ngir ñu wutuk waaw a Macky Sall day génnee na chèque ba day ah waaw wala chèque ya kay waaye itam génnee na nag ay daan di ay sanction Macky Sall nee na képp koo xam ne def nga fi lu deful day duñ la baale tolérance zéro perte temps bi ci boppam tamit du ma ko nangu Macky Sall nee na opération yi na leer wujal ko gone yi lée nañuy joxe xaalis ba ak financement yi léeg day leer Macky bëggul lëndëm nay leer saay laa <laughs> ilaha illallah moom président Macky Sall yamu ca dee déedéet xëyu ndaw yooyee ak université gi xam ne kon nañ koy caxa-caxatee kon di xeex ah Macky Sall day génnee na karoot ba dee waaye génnee na tamit yabal laa la wax dëgg la président Macky xamal ne étudiants yi ne leen leen arène nationale laa la wax nekkoon leen ci ab ëtt woo xam ne dóorantee ka rayante te gis nga université campus te danañu ko jubbanti kon ba mu jukkat bàyyil nappe Macky Sall yamu ca ndaxte nee na ñi ko ne Samba waaw l'observateur ne waxtaan direct bi doon am digganteem ak jeunesse ba day ah Macky Sall mi de yàpp wala wutal liggéey de yàpp wala wutal liggéey de parce président Macky Sall daal santaaneem yi mu joxe ah bëgg na gars yi waatoo ak moom parce que Macky nee na leen damaa wax askan wi lé ak kanamu ndaw duma baale dara coow li nga xam moo fi amoon mars manifestation yi day mais bilan bi mënoon na fee gën a tar ar di tali waaw waaw waaye xam ne yaakaar nga ne nguur gi ci boppam dafa ne Macky Sall kay signé na chèque bu rëy ba de signé na ko de waaye Khadim Diop bii président conseil national de la jeunesse bu Sénégal day nee na gis nga kàddu ndaw yi jafe-jafe ndaw yi lée waaw gars wuñ ko xel de déedéet yéeni kaa gi ne xëyu ndaw yooye gars yi génnee dinañ abaku de bàkk gubee slogan mooy xëyu ndaw Ali Khoudia Diaw ci tribune yéene kaay waaw nee na président erreur amatina de bilaay erreur amatina te erreur bu xasee ba am rek am na erreur la erreur la évidence yéene kaay ne en tout cas ndaje démb ba day a ah waaw ne ah kay théâtre pire lañ doon def na démb ca conseil présidentiel boobee ci wàllum xëy ndaw laa la wax circle nañ leen jël exemple wàllu santé wér-gu-yaram ak wàllu ñaari secteur yooyee wàllum recrutement ba day farata daar daar lañ ko war a def Aliou Samb ba ñaa ca parce que waa président Macky kon lam doon wax démb ak di ko def ca jam ñaajoo yëpp dama ne la bu doon dëgg la ca moom dafay bëgg a jëlee wàllum kii dama ne la kon dem Espagne laa la wax ay téeméeri téeméer ci ay sénégalais daal di cay dee kon Macky Sall ca saasa lay organiser lii te xale dara taxul woon ñu jóge lu dul wàlluk ndóol gi nga xam ni kilifa yi ñoo ñu ko teg ba manifestation yi am ngay def théâtre di cirque naan da ngay wutal xale yi liggéey tribune yéene gis nga xale yooyee waaw dañoo soxla ku ku ñu waxal soxla tam ko jublu na ci seen wàllu jafe-jafe yooyee looloo sa bopp tey jilee bu 10 heures jotee dana daje ak xale yi ci mbeddu Ndakaaru njaay jël jóob yi laa la wax parce que Bougane Gueye Dany dana dana daje ak raxaskatu oto ya dani gay dana daje ak mécanicien yi ak menuisier commerçant ya dama ne la bugaan gay dani dana daje ak cacag yi ak taximan yeeg coxeur yeeg apprenti ya ñaf 24 <laughs> heures yéene kaa ne gis nga diggante Macky ak Ousmane Sonko mi le waaw ndaw doxal de barki yonent bi ndaw yi doxal xale yaa ak de ndaxte ëllëgu ndaw yooyee ñi nekk ci côté Macky Sall ak njiital opposition bi le Sonko moom la nekk di waxtaane Sall Sénégal kenn moomu ko laa la wax nekkul propriété privée 24 heures yéen a kaay ak évidence yéen a ndajama démb day penaat am na fa de parce ministre Mansour Faye loxo ci poste la ko jàpp muy wax lu amul maara day taali waaw dama ne la xaalis bi nga xam ne kon moom la nguur gi waroon jox Jakarta maa nii dawal Jakarta ci jamonoy corona gi dimbalee leen ko waaw xaalis ba daal la muy saf mooy sàcc nañ ko détournement lay saf laa la wax laa la wax maar di Italie gouverneur u Kaolack di Aline Badara Mbeng moo jubal ca micro ba fu laa jaay Dakar de laast programme Macky Sall bi lé ngir ndaw yi waaw xanaa yàlla dugal ca loxoom de miracle am Macky Sall juróom-ñeent ci ay poñ la teg ca kaw tali ba source ané ndaje ma démb day ay milliards ay kàddu yu neex eh yooyu Samba na nooyi Macky Sall ak jeunesse bi rek na nooyi source ané waaye troisième âge bi tamit Macky Sall di wutal liggéey Macky daal mooy champion yeneeni kër muy Ageroute RTS demal Aprosi ITA juróom benn fukki at kaw rek demal Petrosen Holding ngalae wala banque de l'habitat du Sénégal demal Sodefitex IPRES Le Soleil ay maire ak ay baa rek ñoo nekk sa conseil d'administration ba laa la wax nga ne da ngaa wutal xale yi liggéey Ibrahima Sall économiste la day ancien ministre ci Macky ci Direct News waaw nee na ñi nga xam ne amuñu liggéey day mais loolee dafa feeñal dëggantaan njaay suñu wàllum koom-koom gi la parce que ancien DG Sika nee na secteur informel bi day mooy premier secteur ci Sénégal waaye la fa gën a doole sous emploi bi la libération yéene kaa ne waaye garab yi nga xam ni kon dañ leen a jàppoon day faux médicament yi waaw facture yi fa jàpp day day na xel de waaye ña nga xam ne ñoom lañ ca tudd yóbbu nañ leen ca kaso ba allahu akbar dem naa ca làmb ja cay bee 52 bombardier ak Balla Gaye ja ñëw l'observateur ne Balla na ñaari combat day lekk millions laa lay wax ni Balla Gaye téye na ko parce que ñu ngi koy waajal beneen revanche ginnaaw bu bëree nag ak Boy Niang 2 ba nuppi laa la wax ak cent millions yoo xam ni kon teg nañ ko ca taabal ja moom doomu dubalees gi lée doomu ndoye Aziz Ndiaye dem naa ca football ba réew mi quotidien ne ñu tey lan moo tax ba Augustin Senghor mi lée a dem Augustin Senghor daa war a dem ci bopp fédération sénégalaise bu football bi naa dem ma dem ma dem <laughs> tey man Augustin yow nit ñaa ngi jooy tere xeeñ te troisième mandat dañ ko sur Salam Vision.